asalaamaaleykum mbokki M4 TV dal leen jàmm ci seen émission ëttub diaspora M4 TV national M4 TV international nee naa leen bu fekkee ni am na benn télé boo xam ne euh, Sénégal moo ko ñor M4 TV la waaye tamit bu amee télé boo xam ne euh, du fàtte ña ña nga xam ne ñoo ngi ca bitim réew ndeysaan di ay jàmbaar lool di daan seen doole ba tax dañuy am mbégte ak euh, kontaante waaye tamit di am banneex ju rëy saa su ne di dellu siwaat ci li nga xamante ne moo di ëttub diaspora ànd ak yéen waaye tamit ànd ak ñi nga xam ne macha allah kenn ki sama baay la kenn ki sama yaay la tey nag te du ngeen gis sama euh, sama baay parce que ndijaay daa xaw a occupé waaye maman nuyu naa la. Euh, borom cub bu rafet bi. waa ci France loolu. waa allah. bismillahi bi ñu sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sangu sang yi maa ngi gërëm bu baax a baax sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla ñu xippee ci àjjana firdawsi ya ah di gërëm bu baax kilifa diine yi ak yu aada yi waaye di gë di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi ah yal na yàlla fëgg seen bopp bu ñu mën a dellusiwaat ci njaboot gi di dem ci prison yi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw di leen ñaanal yàlla rek yal na leen caabi féete kanam ba ñu mën a dellusiwaat ci askan wi di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi bakkan bu ñam dund bu nekk rek dina ñam de yal na yéex waaye yal na ab sore ñuy teewaat fi nga xamante ni rek mooy ëttub diaspora bi di fi waxtaane li nga xamante ni rek fa tabaarakallah si sari la Ah, di kontaan rek dama lay delloowaat kàddu gi. jërëjëf maman <laughs> borom musóor ba yaa ñëwee. waa gis nga dëgër musóor. <laughs> kenn sama yaay ji macha allah waaye xam nga nee naa leen euh, tey nag euh, suñu papa mbay Ndiaye euh, nekku fii. dafa xaw a am imprévu. Mhm. waaye bu fekkee ni sama nijaay ñëwul ma indil leen ki nga xam ne moo di sama góor Davida nuyu naa la. naka ngoon maa ngi si jàmm ma jàkkaarloo sama yaam mu sañ si tarkaal. macha allah ma bàyyi la balaa maa nuyu diaspora ma nuyu waa Sénégal. parce que lii si sañ see. ngeen ah. di anticiper. <laughs> ah waay tarkaal xam nga xam nga lii dafay neex. ñun lii la xam lii mooy suñu aar. lii mooy suñu teranga jigéen sañ bëgg sa bopp yaa ngi def sa lunette yaay def tagal <laughs> ah ah ma jaajëfal ñi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi koy xaar mhm. euh, fii ci M4 TV euh, donc waa diaspora bi euh, mhm. defe naa émission baa ngoog may jaajëfal également sama doyen di koy ñaanal moom cuun mhm. naan ko cuun baabal Demba Thiam man moom cuun googu laa koy taggee ndax nit ku baax la jiit de xale yi su ko neexoon mu fakka sargaa yi mais defu ko yaatal si ndax gis nga nit fekk si la nga yaatal ko fii kanam la koo ko tëjee mu xam. Mm-hmm. mais nga jël xale yi ku ci nekk xam nañ dañuy bari caprice. Mm-hmm. nga mën di leen di supporter. noonu lañ koy jaajëfalee ñi nga xam te ne rési bi. Mm-hmm. ndax suñu wax neex na. ñu gis ñu neex na mais lu njëg njaak ñoom ñoo di njaat waaw di koy ñaanal tamit sama collègue yi fi nekk yëpp macha allah mm-hmm. macha allah li fi sotti eh, ñoom la waa Régis di leen jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. waaye xam nga maman keroog dañoo waxtaanee li nga xam ne eh, moo di ñi yónnee seen alal mm-hmm. ñu war leen tabaxal ba pare noppi lekk seen xaalis ndeysaan xol yi tooy waxtaan bi neex lool bëggoon nañ ko def deuxième partie ndax bari na ñoo xam ne eh, bëggoon nañu wax si thème bi waaye dafa fekk ne tabaski dafa jege même bu fekkee ni waa diaspora fa ñu nekk ak ñun nuñ koy defee du benn waaye national M4 TV international euh, ñu daal di leen fàttaliku bu baax a baax waaye tamit bokku tabaski bi ak ñoom moo waral sax euh, tey li ñuy waxtaanee moo di mbirum tabaski mhm. rawatina nag ñi nga xam ne suñu ay euh, doom lañu ñu nekk fële ca bitim réew mhm. naka lañ koy dundee ak ñi nga xam ne tamit dañ leen a jege lool waaye ñoom fii la ñu nekk fii ci Sénégal wala sax mu nekk bi mhm. ndax tamit xam nga am nañ ci ay mbokk Gambie ñu ci mel ni ñoom Linguère Diop di leen nuyu bu baax a baax su ko defee dañuy dem seeti premier élément léegi allah ñu dugg si waxtaan bi fii ci Sénégal dañu ko def ginnaaw ñaari weer ak fukki fan bu ñu amalee lii di Eidel Kabir ci la ñuy amal lii di Eidel Adha ñu gën koo xam ci tabaski tabaski nag ab fête religieuse la bu jullit ñi di amal at mu jot ngir fàttaliku nangu gi yonentu yàlla Ibrahima nangu woon a sacrifier doomam ngir jaamoo ko yàlla te suñu borom yebaloon Jibril mu wàcceel ko am xar ngir njukkalee ko ko. ba tax mu di wareef ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ngir muy amal am arfaan ci bisu tabaski waaye ci kaw boo ko mënee fête di sacrifice lañu wax waaye mu mel ni jamono yii fii ci Sénégal dañu ko def xew tax na buy wàcc kenn ku nekk di bëgg am xar fu mu gën a rëyee ak ni mu gën a seeree ñii jël ko def ko mbirum solu ak summeeku mel ni dañoo nekk ci concurrence su sañsee waaye li ñu ci sol moo di waxtaane ci émission ëttub jaspora bile suñu mbokku sénégalais yi nekk bitim réew ana naka la ñuy dundee seen feetuk tabaski. ginnaaw ñaari weer ak fukki fan bu ñu amalee lii di Eidel Kabir ci la ñuy amal lii di Eidel Adha ñu gën koo xam ci tabaski tabaski nag ab fête religieuse la bu jullit ñi di amal at mu jot ngir fàttaliku nangu gi yonentu yàlla Ibrahima nangu woon a sacrifier doomam ngir jaamoo ko yàlla. suñu borom yebaloon Jibril mu wàcceel ko am xar ngir njukkalee ko ko ba tax mu di wareef ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ngir muy amal am arfaan ci bisub tabaski waaye ci kaw boo ko mënee fête di sacrifice lañu wax waaye mu mel ni jamono yii fii ci Sénégal dañu ko def xew tax na buy wàcc kenn ku nekk di bëgg am xar fu mu gën a rëyee ak ni mu gën a seeree ñii jël ko def ko mbirum solu ak summeeku mel ni dañoo nekk ci concurrence su sañsee waaye li ñu ci soxal moo di waxtaanee ci émission ëttub diaspora bile suñu mbokk sénégalais yi nekk bitim réew ana naka la ñuy dundee seen feetuk tabaski. macha allah Alpha wax na ko jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si élément bu am solo boobu noonu nee na fête des moutons la waaye ñun Sénégal dañ koy defee dafay saf dafay xumb ba tax na bu tabaski jub see rek ku ci nekk sa xel dafay dem ci li nga xamante ne moo di mbirum tabaski loolu nag la ñuy fas yee wax la fas yéenee waxtaanee tey balaa maa tàmbali dama lay laaj Davida. Mm. tey ji bu la lii fekkoon. fii ca bitim réew ak ambiance bi nga xam ne ñu ngi koy dund fii ci Sénégal métit boobu di nga ko mën a supporter. waa xam nga lu jiitu sax tabaski mais dem tukki sax dafa metti ndax boo nee da tukki rek déjà li nga nar a bàyyi si ginnaaw même bu doon yow kase la sax waaye da nga fa bàyyi waajur yi ñeen ñi dem nañ tukki am lu bari li xew ci seen ginnaaw mais it nga dem tukki nga gis lu bari di xew si sa famille di xew ci sa dëkk di xew ci say xarit te nag li ci gën di métti léeg-léeg sax mooy nga bëgg a ñëw te doo mën a ñëw kon loolu boo ko boolee muy impression beneen bi nga xamante ni aussi muy feet boo xamante ni bépp jullit lañ ko def donte du feet boo xamante ni dañ ci war a maanaam bég mhm. tabaski du nañu fàttali nit ñi du lu ñuy béggee dafa war a nekk jàngat ci ñun ngir kan yonent yàlla Ibrahima mhm. ngir lan sacrifice bu mu naroon sacrifier ki nga xamante ni moo di Ismaïla ngir lan nangu bi nga xamante ni soo na xadu kii am nangu na ko ajara donc loolu jàngat la ndax ajara moom it bu ñu fàttaliku ni moom it laataa moom muy am doom jooju. dafa amoon wujjam. dëgg la te wujj bi it moo nangu it ngir doom jooju am ca moom. ndax léeg-léeg comme ni ñu koy wax wujjante gi ñu gisante fii léeg-léeg. day dem ba maanam lu muy jur ci bañanteeg ci enante ak yi mel. mais contrairement ci ñoom. gis nga bi nga xamante ni tamit yonente yàlla Ibrahima am na am na am na boobu it suñu borom it feeñu ko ci ne ko da ngaa war a euh, rey sa sa sa doom ji Ismaïla Ismaïla gi lu ñu war a jàngat foofu mooy exécution ak nangu bi nga xamante ni yonente yàlla Ibrahima am na ko mhm. ci lan ordre bu ko suñu borom jox mu nekk ordre boo xamante ni man mii de maay sama taaw papa ak sama taaw yaay mhm. te xam naa ne bu sama papa taxoon ne ma dama lay rey damay daw macha allah balaa sama papa mhm. moom mi nga xamante ni moo di Ismaïla ndax kat sa bàyyi ne la suñu borom jox na ma ndigal. Mm. ngir ma rey la. Mm. nga ne ko kon bàyyi jàppal ni boo may rey waajalal lépp samay xarit yi nga xamante ni sax dañ doon ñëw fi ci kër gi bu ñu ñëwati ci kër gi. Mm-hmm. ndax bu ñu ñëwee ci kër gi sama yaay dana leen gis te bu leen gisee sama xel yaay day dem ci man mii. ah ban dooma ko nangu ci tey. mu delluwaat ne ko kon nag del takk sama bët ngir suñu bët yi bu ñeentalee maanaam yërmande gi. Mm. ci ci diggante bàyyi ak doom. waaye delloo ni papa paaka bi na nga ko ñawal ba mu ñaw nga xamante ne boo ko tegee sama baat bi rek mu dagg waaye bi mu ko demee consulter ki nga xamante ne moo di soxnaam di ajaara moom it la mu ko wax mooy que digal la la suñu borom digal jëfee ko li ci gën a garaaw nag mooy ajara ci nangu gi mu nangul borom këram mooy moom moo demoon rek uti gi sax la nga xamante ni moom mooy matt ya ngir bu ñu paree ñu xam ko ca waaye ban jigéen moo koy nangu tey kon ku la ne lii feet la boo xamante da ngaa war a bëgg nax na la mais dañ si war a jàng nangu gi nga xamante ni moom yonent yàlla Ibrahima nangul na ko boromam subhaanahu wa taala waaye ni nangul it comme ki nga xamante ni moo di Ismaïla maanaam reconnaissance ak nangu gi nga xamante ni baayam digale na ko ko waaye nangu gi nga xamante Ajara it nangu na ko nangul ko borom këram loolu moom moo nekk gum déjà importance su bés bii léegi beneen importance bi nag mooy ka dem tukki bàyyi papa fii ka dem tukki bàyyi yaay ka dem tukki bàyyi jabar waaye tam ka dem tukki bàyyi doom mm. ci ban anam noom la war a féetee feet googu nga xamante ni feet la boo mm. mm. xamante ni bokkut ak sa sa condition dëkk ndax ku xam Sénégal xam ni dëkkub teranga la ku xam Sénégal xam nga ni kër gu nekk nga dugg fa baala fa àq waaye est fa nga xamante ni ñoom fa la nekk dinañ dugg ci kër gi bay baalante àq ndax ku nekk xam na ni dëkk boo gis ak i ay réalité te Sénégalais bu jógee fii dem ci dëkk jàmbur réalité yu dëkkam dootu ko mën a appliquer du doon benn moo mhm. ko ma daal di jëm ci sama yaay li ma doon a wax léegi ndeysaan xam nga tabaski rawatina ñun Sénégal nañ ko tàmmee di def ambiance bi ak ñoom seen waaye tamit nga yeew nga gis sa yaay nga jox ko loxo nga gis ki nga xam ne moo di sa rakk maanaam bés boobu ba fekkee ni sax am na ñoo xam ne dañoo jote woon ci biir kër gi dañuy daal di jiboo doon benn nga xëy benn jour yow kese yow kepp ak sa néeg doo gis kenn ku la ne bonjour waxuma la ak ça va maman muy lu metti muy lu metti rela muy lu metti sax gi wax dëgg yàlla euh, fan na bi rek mu mel ni weesu na ko ndax itam euh, di nga wéet su fekkente ni yow fii nga xam yow ak li nga fi tàmm ak li ñuy tàmm ci tabaski même bu fekkente ni sax du neex moo ko tax a jóg jour boobu day neex ndax di nga am lu bees di nga lekk yàpp bu sonn mm-hmm. di nga gis ñoo gëj a gis di nga am xaalis. Mm. kon mu mel ni dañ koy neexal. Mm-hmm. mag ñi sax dañu am ndewenal. Mm-hmm. waxuma la xale yi loolu mooy tax neex-neex bi ba ñu fàtte la waral tabaski. Mm-hmm. waaye bu fekkante ni la koy neexal lépp. mu nga jóge ca kaw. te ñun ñu koy dund koo ko ko joxe dund ko. maanaam ka nekk bitim réew. lépp lu dee ci kër gi moo ko fi rey. moo joxe xar mi. Mm-hmm. joxe soblese mm-hmm. joxe joxe joxe li nga xam ni mm-hmm. moo war a ànd ak xar mi te dund ko wallaay la azim bu la nettalee yow sax journée boobu doo nekk ndax dañoo tàmm lakk tàmm togg tàmm ootante dajale oo bool teg bool yi koñ ak koñ dëkk ak dëkk mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp master loo ñëw ñii naan ataaya ñii naan boisson ñii di sa doom tëdd fa mu tëdd mbaa boog sa jëkkër mbaa yaa xam sa yaay tëdd ngay xàppi jour boobu bu la nettalee moom mbaa mu def appel vidéo ne lii laa dunde mhm. yow doo nekk kon mu mel ni neexul ci ñun mhm. neex na ci ñun waaye neexul ca ñoom rela day métti trop sama yaay wax na ko léegi léegi waaye xam nga Davida dañoo tàmm di wax ñun jigéen ñi dañoo bëgg àddina ba tax ñun dañuy yeenu tabaski bi waaye xam nga ni eh, kenn du gën yéen góor ñi da ngeen di yeewu dóor seeni xaftaan ah moo xam day weex moo xam day verte ak ñoom seen yeneen njëkk a préparé daanaka mhm. ci ku góor nga xam ne nga xëy dèjà bu fekkee ni yaa ngi yor soxna mu lay tegal ay laax ak ñoom seen tey jii bu fekkee ni ki nga xam ne mu ngi bitim réew gisatoo loolu dara ci sa soxna mais au contraire yaa ngi koy ni moom mooy def lépp foofu noonu mais yow doo ko dund waaw xam nga li ñu naan neexaayu kër borom kër ga fekkeewu ko mhm. ndax borom kër gi ku ne xam na ni benn calcul lay def muy calcul mental nan lay xalaatee suba nan lay yónnee nan mooy dépense suba gi gaz bi kañ lay jeex c'est des calculs yoo xam nga jigéen daa war a dooleel góor ñu mm-hmm. góor wala dooleele jigéen jigéen dëgg dëgg bu doon jigéen dëgg waruta jël sax maanaam bëtam bi teg ko ci jëkkër ji am jëkkër ji waral jël bëttam teg ko ci lu jabar ji am donte ñoom ñaar seeni lépp complémentarité la war a doon maanaam consensus ci lépp lu ñuy def communication ci lépp lu ñuy def mais complicité ci lépp lu ñuy def donc loolu su fekkee ni amul ci relation bu demee ba nga xamante ni ku jigéen ki ñàkk xel gi mu ñàkk xel ak mën di yàq tamit surtout mënut a yemale ay bëgg-bëggam day prolongé jëkkër ji ci loo xamante ni dañ ko Mm-hmm. tabaski yàlla tegu ci kenn lu mu lu mm-hmm. waxuma laaj nag ñuy teg suñu suñu seen i jëkkër yi ay pression mm-hmm. kër gi de li fi nekkoon jeex na mm-hmm. nga nekk di gaspiller ak nu la neexee ka mm-hmm. nekk ca kaw comme ni ko yaay waxee da yónnee doo xam na mu def ba am ko mm-hmm. te amaana ni ba mu la ko yónnee bu la yónnee woon tey ji cinquante mille yaa ngi ko xeeb bu la yónnee woon deux cent mille yaa ngi ko xeeb amaana ni moom fa mu nekk sax mi ngi am problème location amaana sax ñu héberger ko amaana ni sax fa mu doon liggéey arrêté nañ ko amaana ni sax moom mii lii mu la a kon yemalay bëgg-bëgg gii moom la jigéen di war di def waaye lu sa bët bi tege rek nga bëgg ko di nga dugal sa bopp yow ci loo xamante ni doo ci génn ndax fii nga nekk ci Sénégal benn baat ngay tiitaroo sama jëkkër ngi Europe te xamoon nag la woon daa woon ni Europe léegi neexul conditions yi yaa ngi koy gis à la télé conditions yi yu nekk yaa ngi koy gis nit ñi ñu ngi leen di torturer ñu ngi leen di sonal ñaata ci góor ñoo dem génn seen kër bàyyi fi seen ndey mu gaañu seen ginnaaw bàyyi fi seen baay mu gaañu seen ginnaaw li tax mënuñu ñëw te ku xam ndey xam baay nu mu neexee buñ demee ba nga xamante ni sa baay ay sa yaay faatu nañ te mënoo ñëw xamuloo ci yenn condition moo la retenir la ñu jël tëj leen seen ndey ak seen seen jabar ñu ngi fi comprendre lu te jéemu ñoo laaj li mel ñaata ci jigéen yu gàttu xel ngay gis seen borom kër envoyé leen xaalis ñu koy xeeb naan ko moom de bi mu demee foofu ba tey lii la ma mën a envoyé. Mhm. nga am nag nag koo xamante ni du goro golo la. golo waaw. Mhm. du goro du goro de golo la. Mhm. mu lay dëkkal sa nopp. du goro. golo la golo la. waaw day dëkkal sa nopp naan la. yow de sa jëkkër ji bi mu demee ba tey. ana lii la la def sa changement lii ak sa laaj la influence la nga tapage ko ne comme léegi noonu la nga gis ko mu lay dugal ci yenn système de jeu yi système de jeu yooyu yóbbu la nga nekk ku immature ce qui veut moo lay pousser à ce nga dem xool ku mel ne cuum mi nga xamante mun na laa siimal sa maringaan yi yëkkati mbir jox la te kenn yóbbu woon ko ku golo bay koy waaw ndax golo léeg-léeg mu jël tam teg ko ci ki nga xamante ni mooy mooy mooy mooy